métay dara bismillah wàllu njàng meeg njàngale mi boo defulee attention de ci nax saay la jëm day yàqu de maar day taali le populaire ne négociation yi nga xam ne kon nguurug Sénégal geeg jàngalekat yi ko doon nañu ko def ah mbir ma kon daa mujj lajj mu yow laas ne Sénégal bi ba léegi ni le kon ci ay jafe-jafe kon la ñuy dund coordonnateur CUS di Omar Waly Soumarou nee na ndaje mii nga xam ne kon moom la ñu amal nii dara kon jóge wu maa la wax li lii daal moo tax ba ñu xam ne ñun fi mu nekk ni dañoo jàkkaarloo ak ay kilifa yoo xam ne ca wàllum tuune kon la yëngu mbirum amateurisme kon la yëngu te loolee nag la naqarlu sumaru yamu ca mere na lool ministre bi nga xam ne kon moom lañ dénk wàllum fonction publique di Mansour Sy waa ji ne soo leen gisee maanaam ñu mere leen du dara lu dul wax loo xam ne du dëgg parce que dafa ne kon ministre de la jeunesse kon mi ngi ngeen wàllu njàng njàngale mii jafe-jafey am ca juboo du ca am mooy ne la nga xam ne moom la xaatim ci boppam kon signé ko diggante kilifa yi ak jàngalekat yi dañu ko dul respecté kilifa yi war na ñoo respecté ñu faatu ci suuxu batalo joolaa gii Sud Quotidien ne Macky Sall moom suul na joolaa moom batalo moom Macky moom da koo suul ah waaw waaw mais yow xoolal bi ñuy màggal anniversaire suuxu batalo googu Macky Sall la nga woon kon ca bitim réew waaw ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ci ay doomu aadama yoo xam ne kon nañoo ñàkk seenu bakkan 1863 morts laa ilaha te giraawaali gu mel kon ci àdduna wërngal këpp gépp géej mës lekk kon lu ñu toll déedéet conseil des ministres barki mu njaayam ji la yaakaaroon ne Macky Sall kon dana ca daal di kon profité indi kon ay tontu yoo xam ne kon yu ma tontu la ci li nga xam ne kon moo ëllëñ boppuk njabootug ñi nga xam ne kon ñoo loru ci suuxu bato la joolaa France daal di xidin ñu loru la ca ñaata dooma aadama ak ñan ñoo faatu ci suuxu batalo joolaa googe waaye tamit jirim ak baayo yi nga xam ne ñoo judd ci suuxu batalo joolaa googe ñu jël leen kon en charge waaye gis nga question yoo jee Macky Sall da koo waaf da koo sëgg de te Macky Sall nag fi mu nekk nii li ko war mooy ànd ak njàmbaarte courage waaw waaw Demba Dia roog mba lax ci laas ne Macky Sall daal dal ga nga xam ne kon moom la àndaloon di wàllum lucidité ah da jël te ko fee léegi daal ca la ñuy dara dul ab nguur goo xam ne kon dañuy fendikat i la ilaha illallah déet mensonge d'état la ci la ñu yëngu Demba Dia yemu ca nee lii lépp nag du dara lu dul ñi nga xam ni kon ñoo ànd ak Macky Sall ñoo ko ciy dugal waaw te na jàpp ne moom Macky askan wi ci boppam kon moom la fal benn nit la ñu fal faluñu ab équipe boo xam ni maanaam dañu lumb li ñuy sàkku nag ci président Macky Sall man Demba Dia maa ko wax mooy mu taxawal ab programme goo xam ni jéem a kon suqali suñu réew mi benn ñaar mu bañ am kon ab lëndëm lëndëm loolee moo gën daal mu nekk fi di taf yëngal di def ay affaire yooyoo diggante programme yoonu yokkuteem gisuñ ci benn avancement courant bi coupé suba ngoon guddeeg bëccëg di xuy xuy xamaj xamaj nii gisuñ ci benn avancement ñàkkub kaaraange gi ci biir réew mi insécurité gisuñ ci benn avancement wutum xëy di emploi liggéey gisuñ ci benn avancement la ko tijjee yéene kaay ne koom-koom gee ngay bañ de mar taali ma ma ngay wiqulaa la wax ay jafe-jafe ngir fay salaire lempo bi nga xam ne maanaam doon na fi dugal ab weccet bu baree bari ak duwaan wàññeeku kon lañ te nimiku ma ne Macky Sall mii Macky Sall nañ leen ko génneel sarax ku ci nekk na génnee ab palaatu ginaar ginaar goo xam ne dañu koy togg ba mu saf defar ko ba mu jekk rafet lool waa gilee ñu génnee ko sarax ngir accident yeeg dund gu seer geeg musiba mbaaba kuma yi nga xam ne kon ñu ngi yott Sénégal gii sëriñ bi santaane sarax ba yamu ca ndax nee na ginaar gu baax googee sarax ba nañ ko sarax kon ay tuutànk di ay xale tey ginaar coowal ginaar yi nga xam ne kon nañ leen di jëlee ca bitim réew gée mi ngi lëmbe réew mi ba tey laas ne dafa am ñoo ñooy def kon ay manœuvre di yëngu ci suuf yi kon di dugg ministre Abdoul Mbaye Matar Sy Diallo Aminata Mbengue Ndiaye nee nañu ñett loolee du ci dal tey te ca dal ëllëg ka wax wax ju dal kay mooy Abou Abel Thiam ga wax na de ka ci jafe-jafe yi nga xam ne kon ñoo nekkoon ci nguur gi Abou Abel Thiam wax na ci wàllum courant bi wooy dimbali ñu li laay war a suuli ca courant ba la populaire ne courant bi nga xam ne kon day coupé suba gu dégg bëccëg di xuy xuy xamaj xamaj dellu seeti ak jafe-jafe toroxtaange goo xam ne kon moom la askan wi di dund maara day taali fi nekk nii nit ñi kon xamatuñ fi ñu jëm ndax courant bi sonal la nit ñi lool weeru yàllaa ngi nii dool toog bi su lumb teew courant bi newul tippi dem ci yenn quartier ci ndakaaru ak ca banlieue bee ñu nekk ci ab lëndëm goo xam ni kon waay yow lii na ay waxtu waxtu yenn saay sax da ngay toog bi sub lumb doo gis kon luy am na ci ay gox yoo xam ne ma ne bu courant bi ñëwaatee sax ñoom duñ am courant ah <coughs> waaye yow ma xaw ma ay réseau xaw ma c'est grave yéena kaa gi boo ma weddee yow laajal ñii nga xam ne ña nekk ca unité 21 xoolal juróomi kër yi ca Parcelles Assainies toog nañu ñaari fanu yàlla te amuñu courant mbaadu maa la wax li le coono loo xam ne jéggi na dayoo te wax ak waa sene lëndëm goo gee taxul kat ñu jéem leen kon defal déedéet est-ce que nit mën naa defal xaadim tuun Serigne xaadim tuun ci Walf Grand Place ne am na lu ma métti lool te gis nga réew mi waroon naa fekk kon safara si jax-jaxi kon ak deret ji tuuru bu doon Cheikh Béthio yarul njabootam gi ci siraatal mustaqim a ah waaw waaw moo leen dal rek dal rek te man la ma jàpp man sëñ xaarim tuun député fa xas waaw mooy ne sama baay di Cheikh Béthio jàppale gi nga xam ne kon jàppale ne ko Abdoulaye Wade ci élection yii moo ko yóbbee lii de parce que loolee am na ci ñoo xam ne mënuñu koo wannaasu mënuñu koo diseere ñu ñëwee ci donkaase ci nguur gii il faut te doole baa nga PS la fi seen kaay ne parti socialiste yëngu na coow la nag teeree ji ne kon ba Paris Khalifa Sall ma nga ca coow la tribune yéene kaay ne Malick Noël Seck mi ñu dàq Khalifa Sall ak Ousmane Tanor Dieng ña ngay jàppante kon ca Paris la France lay la ci ndakaaru gi libération yéene kaay nee na sàcc amatina ARTP de détournement ah ñeenti téeméer ci ay millions quatre cent millions la ilaha illallah ci radio diffusion télévision africaine di RTA gi nga xam ne kon Abdoulaye Wade projet am la ñu waroon ko fee samp ndekete ñeenti téeméer ci ay millions la gaay ne faxas sàcc nañu ko détournement la dem naa ca lamb ja suñu lamb ne waa Fass la ñuy def kon seen ndëpp lii Balla Diouf ci le pays au quotidien ne Gris Bordeaux moo respecté wul kenn bakala ci suñu làmb ne Elton mënuma woon a daw non Balla Gaye da daw na bay bëgg a dee waaye mbot nañ ko daan nañ ko ah le pays au quotidien ne Balla Gaye numéro deux day takk ñaareel i la ilaha illallah ah <laughs> maa la wax lile xale bu jigéen boo xam ne doomu Gàmbi la ab Gàmbien moo terrassé Balla Gaye 2 daan ko. laa ilaha illallah yaay soose yaay soose yaay soose sose ci ndey sose ci baay yaay sose barki rasuur laay Balla Gaye numéro un mooy entraîneur am nee na bu doon dëgg la baayam dina ma ko wax ay rumeur laa ko jàppe ay rajo kankan yéen a gi ne ko li ma la wax du dañ takk gi suba la ci dimanche ji benn quartier buñ naan ko la li nekk ca biir Gàmbi la ñuy takkee xale ba benn ñaar xale bi papa mauritanien la naar la yaay ji joolaa la sénégalaise suba la ko Balla Gaye deux di takk ca Gàmbi gee <laughs> laa ilaha <laughs> ay man sama wax jële mbaa ëppul takk gu ne dee mën nga koo foye waaye ay takki mbër nga xam ni seen loxo yi maanaam day taaj xaara mu ñëw takk samay bagage walaay ay dara karaar ate weekend yu jóg aw